jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant ñu ngi ñëw fii ci cité Sonatel seet xale boo xamante ni euh, yàlla suñu borom am na lu mu ko baaxee mu di ko partagé ak doomi réew mi nekk ci réew mi nag nekk doomi réew mi bari loo xamante ni euh, yàlla suñu borom mu ngi ko koy defal ñu yëg ko nag euh, à travers ni mu ñu contacter bari na bari ñoo xamante ni bëgg na ñoo xam lan mooy rôle am muy Aliou tur la assan assan Gueye euh, assan Gueye nag nee na tur bi li ko gën a neex mooy surnom bi ñu ko jox muy merci assan merci assan nag li wolof naan merci yomb na ci gémmiñu tubaab waaye ku ko defalu dara du ko dégg xëy na nag merci assan boobu dinañ ci ñëw lan moo waral merci assan bi euh, loolu yëpp dinañ ci war ci li muy yëngu lan la nan la ciy yëngoo loolu yëpp dinañ ci indi gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu dellu siwaat mën a waxtaan ak Assane ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay monsieur euh, di kontaan bu baax si euh, tew bi ngeen teew fii di wax alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bu baax a baax si di sant aussi sama ñaari sama ñaari waajur parce que nit amul lu ay waajuram. Euh, di sant aussi sama wasila sama lépp sama àdduna sama alaxira muy sëñ Abdou Karim borom Makalima ak la di ko ñaanal jàmm gëñu gisee nag gëñu ñoo déggante bu baax mais maa ngi koy ñaanal jàmm ak baay Fall yi ne kër sëñ Abdou Karim yëpp sama jëwriñ ñi nekk foofu yëpp ay eh, jëwriñ Rijaal jëwriñ ma diggéen jëwriñ Pam ñoom ñëpp daal maa ngi leen di bëggee jëwriñ Xaadim Ndaw di nuyu ñëpp daal di daal macha allah kontaan naa si si si si teewaay bi waaw. Xaadim Fall. non am na waaw Xaadim Fall aussi maa ngi koy saluer de passage Xaadim Fall am na Xaadim Ndaw am na waaw waaw. Euh, tey ñu bëggoon waxtaan. Euh, lan mooy sa sa sa sa métier maanaam. waaw sama métier. waaw man moom dama laal fu bëri nag dama laal fu bari te aussi euh, dama nekkoon militaire ma bàyyi jaar police def naa police liggéey naa ay ak nit liggéey naa ay nit i nit xam naa daal xam naa ne man sama métier bon boo koy qualifier si benn côté daal nga koy qualifier mooy Assane mooy waaw l'homme de douze métiers daal waaw l'homme de merci Assane lan moo koy indi. waaw merci Assane waaw li ko indi leen rek la mooy boo amee xol bu baax ci tu as kër ndax àdduna amul lu dul lu dul xol xol mooy tabax ndax li ngay def sax boo boo si àndut ak xol sax du dem. même tabax bi ngay tabax sax boo amul amour bi du dem mais si Assane bi loolu moo koy indi dama ne damay yàgg def lu baax lu baax loolu ma ne donc pourquoi pas mënuma jël Assane Gueye bi transformé ko comme merci la boo merci boobu noonu même nit ki bu ma la defalee sax ba ma merci sax ba ma la jox ay milliards barki sëñ barki sëñ Abdou Karim baax na merci boobu rek ba ma ko waxee rek c'est fini man daf may rey man merci boobu waaw waaw. tey euh, mu am ci loo xamante ne yu bëree bari nee nga danga koy danga koy dindi ci nit. muy ki nga xamante ne day fàq génn këram dem di taxawaale ci mbedd mi ki nga xamante ni tey ay mbokkam mënuñu ko wax lu mu dégg nangu la jàng kuy tux kuy naan euh, yu bare bare bare bare euh, li ci njëkk mooy ki nga xamante ne day fàq génn ci këram ay mbokkam di ko wër saa yu ñëwee génnaat ban pexe ngay def ci moom ba mu toog ci kër gi waaw loolu moom euh, bu ñu si doon wax suba ba suba ba ngoon duñ fi jóge man dama am méthode boo xam ne toujours moom laay demee mooy man moo kële doo et d'être parmi les meilleurs su fekkee nit ki da nga bëgg mu nekkaat si nit ñi du dóor du xas du saaga parce que ñu bëri ñu ngi génn dañu amul moyen pour retourner bi waat seen famille dañu amul courage pour ñëwaat wala kuy dem di fanaani feneen di fanaani àll nga koy gëj a gis di dem ci sëriñ man non non man dem ma ci sëriñ man juste que bu toogee moom ak moo toogee man ak moom bu ma moom bu génnee dina changé yow si boppam yow yaayam wala yow waajuram da nga naan non non lan laa def si kii ko loolu ni ku nekk am na loolu yàlla may parce que loolu don la man depuis bi ma nekkee xale dama yàgg am yërmande si doomu aadama peut-être ne yàlla fii la ko tuddee que man su ma waxee ak nit su ma la xoolee waxtaan ak yow xool li ne sa xol li ne sa xol laa lay jox mooy li nekk sa xol laay xool ndax méngoon nag lu ne sama xol parce que dañ naan ki balaa nga yan saako ceeb da ngay xool dooleem ba pare man noonu laa mel man damay natt sa xel suñu su ma xoolee su ma xel ma xool sa xool rek ñu ànd man noonu laay xoolee nit du question nii que dafa faax dafa dem yoonam rek parce que non non déedéet da nga koy abandonné déedéet mën na ñëwaat si société bi parce que société bi moo société bi moo tax nit ñi si biti dama yàlla na ma yàlla jéggal si moo bi mais maanaam am nañ personnes yoo xam ne ñu ngi si biti ñoo yàq xale yi ñoo ni jaayloo ñoo ni tuxloo ñoo ni jaayloo yàmba cent franc may deux cent yi ñu fa loolu ñoom loolu mooy àdduna donc loolu du man dinaa man maay def tout ko pour mu ñëwaat toogaat man maay dem que ñëw di di ko xool ni muy yeewoo di xool lekkam di xool waaw lu muy lekk lu muy naan néegam ndax mu ngi seet wala seetul ndax mu ngi sang wala wul loolu yëpp man maa koy veiller donc voilà quoi waaw. Mm. mais Assane li ma jaaxal mooy li ngay wax yëpp damay du ma dégg benn yoon nga ni dafa am sunguf bu ma koy jox wala dafa am njaq bu ma koy jox wala dafa am lu muy raayoo maanaam yow wàllum xam-xam ngay jël toog waxtaan ak moom. ba yàlla suñ borom dogal lool. waaw man du ma man du ma man takkuma dara man yàlla suñu borom laa woolu moom laa jox suma àdduna ak suma alaaxira ko wax naa la fi léegi dama am wasila dama am sëriñ muy Cheikh Abdou Karim euh, man euh, lépp lu ma am rek maanaam maa ko suma bopp peut-être à travers la famille nga xam ne moom moo soutenir peut-être euh, bu moo bu ma jaatoon feneen bu ma jaaroon feneen tamit du du ma agsi fii donc si àll bi laa màggee si àll bi laa yaroo. ay magama yar ma xam su fekkoon affaire sunguf rek affaire reen rek ba doon du mu leen woo bonoon bonoon dama ne non bu ñëwee naa leen boole sëñ bi wala nangam mais du noonu sëñ Abdou Karim bu lay ñaanal da la jox sunguf bu ñaanal da laan la toogal nga toog nga xool ko nga jooy parce que li ngay yëg sa yaram yoroo yaa ko xam loolu nag lay dindi lay dindi lépp lu ba ngay ñëw lay xam li lay li lay indi waaw jox la ne la tëjil butéel bi waaw ñaan naa si lépp nga nga tëjaat après yow yaay dem xool da ngay di ngay gis changement gis gis sa yaram ne man changé na man du sunguf mu lay jox du dara mu lay jox man damay toog yow waxtaan ak yow avec le cœur parce que c'est le cœur qui parle xool mooy wax du doomu aadama bi du jëmm ci man damay waxtaan ak yow xool la segg la nelakaay la nga ñëw ma la lan moo la manqué sa famille nga ne ma non lii ak man la nañ toog ñu waxtaan dañ koy waxtaanee man noonu lay def waaw. mu am tey koo xamante ne dafay tux bëgg a bàyyi tux yow mun nga ko bàyyiloo tux. waaw amoon lu ma lay wax rek. mun naa ko bàyyiloo tux su fekkee moom jël na décision pour bàyyi tux su fekkee damay wax ak ñi correct quoi du ma wax magam jëm boo xam ne am na 60 ans di tux non non bu fekkee magam jëm bu am 60 ans bëgg na bàyyi a a déranger du ne ne baaxul même ñi koy jaay sax xam nañ ne abus dangereux pour la santé donc tux baaxul ñi koy def aussi jeunes yu koy def dama leen ku koy def na nga ko bàyyi tux baaxul ku ku koy def yàlla dañ ko sip waxuñu ne doo réussir sa life mais baaxul surtout boo amee ay parents yoo xam ne dañoo correct ñu am ñu am ñu am ñu am ñu am tour si si si si si société bi am na loo xam ne war nga war nga ko jomm sa doom mu ngi tux waaw man dinaa def de toute sorte que yow da ngay bàyyi waaw loolu man loolu sama sama sama sama phénomène la quoi waaw sama phénomène la. phénomène mais am na ci koo xamante ne kàggu ci ñi euh, frère kii la. bas mais moom day day naan rek sàngara rek lay naan moom nan nga mën a def ban pexe ba mu bàyyi. waaw kii tux ak kuy naan sàngara xama nga yi bokkul parce que ñaari toxique la kii day day tux day naan kooku euh, man dinaa moo ko gisee dinaa xam moom euh, lan laa mën a jëfandikoo moom ak yan parole laay xam nga kuy tux boo doo ko conseillé ak kuy naan. mooy boo boolee ñaari di tux di naan kooku am na beneen méthode kooku da méthode bi may jël mooy dama koy toog wax ko li mu bëgg ak ndax bëgg na ko bàyyi ou pas su ko bëggee bàyyi ñu dem ma essayé ak moom une semaine deux semaine ma gis ko mu ngi bàyyi amul problème su fekkee dafa am problème tamit dinaa di man am naa ay médecins yoo xam ne dinaa ko yebal foofu buñ demee xool ko jox ko ay bi na ko ordonnance ordonnance yooyu noonu bu koy jël ak man li ma koy conseil ak toog bi ma koy surveiller du ko surveiller du ko surveiller moo xam un mois la moo xam deux mois la man su ma paree si moom même ba ma doon fay cinq cent mille su fekkee deux semaines la su ma paree man carrément pare naa si moom man je comme ça mais léegi yow bu mu amee koo xamante ni dafay naan wala muy tox wala muy def genre yu mel noonu ma bëgg Assane ñëw jàppale ko Assane dañuy waxaale avant nga koy jàppale wala da ngay def ba pare ñu doo ko. waaw damay ñëw ne la bon euh, dama jox ma du mën a xam maanaam li ma la wax lépp rek si xol laa koy defee parce que doomu aadama amul lu xol ni ki boo ko bëgg a dimbale doo ko laaj xaalis. déedéet ndax sëñ bi daf sëñ bi yaruma loolu. musuma gis Cheikh Abdou Karim taxaw fi muy laxawee ni dina ñaan la jox ma deux cent mille non yow yaay xool li nekk sa xol nga ma lii laa mën lii maa la ko jox am defal lii man transport rek ba ma ko joxee rek mun naa lijjanti mun naa ko lijjanti chaque jour mun naa fa ñëwal chaque deux jours di ko xool su fekkee ñoom à ce ñu koy vaye ko mu bañ a génn waaw parce que bu génnee rek da koy utuwaat surtout xarit am na xarit yoo xam ne du ñu ay xarit ndax xarit moo lay dugal si lu bëri nga toog ak xarit di naan ay wine di toog ko nga jàpp bi du na leneen yaa autour am na beneen moyen pour que ne da ngay toog sa sa gaañ pour tux déedéet parce que man képp kuy conseil pour sa xarit tux kooku doo xarit doo xarit quoi waaw doo xarit ndax xarit mooy koo xam ne euh, boo nekkee si si si tolof tolof mu mu ñëw ak yow soo nekkee si lu dëng mun la lii baaxul waaye da ngay gis tey jii nii day tux xaritam toog di ko seetaan voilà euh, lu ko neex neex na ko loolu xarit waaw loolu xarit quoi. waaw li nga li nga xam mooy xam nga tey dina am loo xamante ne ay famille nit ñoo la koy reproché ne la sama doom day génn wala day def ni mais ki nga xamante ne daa dëkk ci kër gi di yeewandoo ñoom di fanaanoo ñoom di lekkandoo ñoom di def te buy génn di di rëcc di dem ci appartement wala muy def naka su noon di dem di naani famille bi sax alors ko du ñu xam ne diw mii day naan. yow mën ngaa ne jàq nit rek xam ba xam dafay naan wala ba xam day tux cigarette wala day tux yàmba waaw mooy li ma la wax rek xam nga expérience fait la différence ma dama am expérience nee naa la dama damaa def armée dama def police xam naa bu baax ça fait maanaam 2011 boo ko calculé di nekk ci 2011 2012 ba 2017 ba moment yi ñu toll nii euh, bu mu ne mun naa bu mu ne nelawul naa 5 heures de temps yu mat damay du damay du waxuma lu am non non parce que yi may sama passe temps yëpp maanaam dama ko def avec la brigade recherche am mu brigade bu mu bu mu liggéeyul amul aussi tamit ñu ma soxla wala bëri na ay chef chef brigade de recherche yu ma yu yoo xam ne damay liggéey ak ñoom ay commissaires yoo xam ne damay liggéey ak ñoom dañ dañ may tamit tamit amay loo gis tamit wu la man nit su ma la xoolee jàkk rek wax ma dama lay jugé quoi bu fekkee kuy xam ne yow mii da ngay naan wala da ngay tox hmm? yow. Hmm. yow da yow yow yow xam nga parce ngi doog a ma toogee waxtaan ak yow jusque su ma xam ne da ngay tuxal da ngay naan waaye mënu ma jékki nii rek parce que yàlla may gu ma xam-xam boobu moo tax man la ba xam nit boo ko gisee rek di nga xam ba xam kii day tox wala dafay naan. yow yow tukuloo naanu loo de. ah da ngay naan yow. non télé lañ jàkkaaroon da ngeen naan. <laughs> non mais man maa la war a laaj yow waroo ba laaj. non yow naanuloo. Hmm. naanuloo moom mën ngaa tux mën ngaa tux mais naanuloo. waaw hmm. ah, wala dangay da ngay ñamantu quoi. Hmm. mais nekkoo ci au fond quoi. comme booy li ñu ci nekkee xëy cinq paquets la ñuy tux wala deux paquets après guddi gi nga naan du ñu lekk non non. caméraman bi sëñ Bas. sa masque bi mu xool sa kanam. <laughs> ah sëñ Bas moom tuxul moom moom. sëñ moom waaw mun naa ko waata ah. ah sëñ laal quoi sëñ moom du laal parce que sëñ la ko tuddee quoi yow nag moom peut-être mën ngaa mën nga nekk ah, moo neex jël sëñ Bas défendre ko ne du tux du laal man la damay mos ci cigarette bi rek. waaw c'est xam nga rek des fois doomu aadama doo comprendre quoi. mooy la am jàmm moo nekk quoi. arme na jàmm moo neex mën nga nekk si biir kër gi amuloo jàmm mën nga am famille am papa ñu am xaalis te yow si boppam amuloo jàmm jàmm jooju nag yaa indi yow fekkee bëgg nga ko à ce que yow bëgg nga ko mais tëdd di yow neexul kenn man mi di wax ak yow ça me fait mal ah ça me fait mal au cœur avec ma famille je suis pas avec ma famille ça fait des moments ça fait des ak suma famille ça fait des tamit ça me donne courage aussi ça ne pas dire que ne dama dëkkru suma famille non non man maa man man maa am man maa am sama initiative bopp pour quitter la famille parce góor laa aussi boo dëkkee sa papa ak say doomu baay c'est normal kër gi doxama nga génn fekkee da nga bëgg am jom man loolu laa bëgg loolu laa loolu laa bëgg man man dama yàgg am jom man amul lu ma liggéeyul ah man amul lu ma liggéeyul jaayu ma ndox jaayu ma kii mais liggéey naa jaay naa goro jaay naa jaay naa petit loolu yëpp def naa ko avant may dem armée dama sonnoon. sama yaay aussi nekkoon koo xam ne aussi danoon dem ko voyage ji dem ko ñëw donc mosul tukki à l'étranger mais danoon dem ci sous raison bi ay Gambie amul fu mu duggul aussi. amul pour rek pour que ma nekk nit. donc moom tamit bokk na sama éducation maa koy nuyu de passage xam nga mooy li ma la wax rek nit ki mën nga ñàkk bañ am famille sax mais si biir di nga nekk nit nga bañ a def yéen nii. parce que gis nga tey doomu aadama dafa garaaw doomu aadama doomu aadama dafa garaaw ndax tabax doomu aadama lu garaaw la mooy li sa Abdou Karim di day tabax doomu aadama te doo xam maanaam moom waxoon na ko ki ki baax ba pare kenn du ko defar waaye ki bon kay la ñuy defar man damay xool ki bon ak ki nit ñi sànni ak ki nga xam ne tey jii nii famille bëgg bëggaat nañ mu ñëwaat xamul nu ñuy def def nañ moyen bépp def nañ ci dem nañ lépp pour mu ñëwaat ko da ngay toog ak moom. li ngay def mooy solution bi da ngay toog ak moom toog ak famille nga wax li mu bëgg. mu wax li mu bëgg nga wax li nga bëgg def ak li nga li nga bëgg mu mel mu mel ko waaw lool la quoi. mais loolu moo waral nga jékki-jékki ne dund ma ak sama famille tuur rongañ noonu ma waral lool. waaw boo gisee ma waxul loolu moom wax la ko maanaam du question dama dama dama abandonné sama famille non non non non non nekkuma ak suma famille ça veut dire que ne dama man maa man maa génn suma man maa génn pour nekk ak nekk génne suma life pour jël suma benn néeg wala suma benn appartement ma yàlla may ma dundee ko quoi mais terewul maa ngi suma famille maa ngi fay dem récemment sama maam ba mu décédé na ko yàlla yërëm yal yàlla xare àjjana aussi moom tamit lu bëri dama ko doon yeddee moo tax bu mu génn àdduna da maa ñàkk ñu bëri la ne Assane da nga ñàkk waaw man maa ñàkk quoi parce que y avait des yi nga xam ne man ak moom kese la yàlla moom maa ngi si fen mu ngi si dëgg man ak moom kese ak yàlla mu may wax ne ma Assane góor da ñafe góor da ngay nangu da ngay nangu doon góor dangay nangu maanaam que ne ñu nga nga taxaw ne may ma waaw ñefeel génnal sax même boo deful même boo deful dara sax génnal kër yi nga dem uti même boo amul dara loo def sax génnal rek nga ñëwaat ndax mbalit mi ngay gis si biir kër gi sax dañuy xëy néegi ñu bale ko fobeere après génne ko tuuri ko après bu ñu ko tuuree am na ñeen ñu ko soxla mais mu fekkee benn case la am na ñu ko soxla ñi nga xam ne peut-être dañoo abandonné seen famille mooy ce qu'on appelle les les les enfants la rue jël ko raxas ko jaay ko benn fukki dërëm donc il est les ces enfants là ñu am fu ñu leen am ñu am fu ñu leen dugal ñu am lu ñu wax si ñoom parce que l'état dafa vague état soo ko déggee mooy mooy ñëpp ah man état laa yow lépp ñëpp état lañ du question da ngay toog rek le président n'a rien fait du tout yow doo def dara non non man fekkoon damay xaar président lii du ma ko def parce que le président ma président joxuma xaalis pour ma pour ma pour ma pour ma pour may fay wala may dem sama transport man maa jóg di ñafe donc à ce que nag bu ma demee ba nguur gi nag ne ma noonu dañ la soxla bu baax nag voilà dinaa xam ne man kat am naa lu ma liggéey suma réew kon yàgg naa liggéey suma réew dem na armée ku dem armée liggéey nga sa réew ah j'étais sur kon donc man Sénégal liggéeyal naa ko man bu ëllëgee bi ma taxaw yor suma xaalis kenn du ko laaj quoi parce que liggéey naa pour suma réew ko waaw waaw. nga baal ma ci kàddu yi mais comme tey ñu mel ni ñi nga xamante ni euh, mën nañ leen di wax ay buujumaan wala nit ñi nga xamante ni suñu xëyee seen liggéey lijjanti bi yëpp mooy nu ñu fexe jël alalu jàmbur bu guddi jotee ñuy agressé ñooñu am nga ci ñoom pexe. waaw euh, xam nga li ma la wax doomu aadama doomu aadama du maanaam da nga koy gis si mbedd mi rek nga nga nga ko quoi nga ne ko kii euh, nangam la man damay toog buuju man di waxtaan ak ñoom ñenn ñi la plupart lu ñu may wax non sama famille dama doon kii après ñu génn ma kër gi non il que ñooñu ku nekk nga am am nga que doom dafa métti ah. nga jur doom mën nga ko rey reyuloo ko donc ñoom am nañ place ci société bi am nañ place nañ leen jox une seconde chance avec moi man ku ma xam sa parent wala sa parent bëgg na ma contact. pour nga ñëwaat si kër gi nga nekkaat nit donc dinaa def tout de mon possible pour nga ñëw nekk nit nekkaat nit nekkaat en famille vivre en famille aussi donc voilà lépp tamit voilà ku dem di sàcc xam nga tamit ki dem di sàcc doo xam lu mu sàcc kii day sàcc parce que ok damaa bëgg lu lu ma lu ma sànce kii day sàcc bon sama sama sama gel moo tax may def lii wala kii de sama yaay bokkuñ kali bokkuñ ñuy sàccee kii day sàcc juste pour yàqal doomu aadama kii day sàcc pour juste que man je m'en dama sàcc rek pour nii mais donc loolu pal police police bi a chaque fois ñu ngi koy tudd dama ne non parce que la police là il est toujours pour il est Euh, toujours pour la population chaque jour mu ngi fi ak population bi parce que xam naa brigade nu mu mel waaw xam naa bu baax brigade nu mu mel fois nga tourné sax dem si benn koñ gis ay booy ñu toog nga ngeen def lu ngeen def fii noonu dañuy waxtaan tasaaroo leen loolu aussi tamit bon damay ñaax ñi nga xam ne tey jii aussi ñooy bàyyi seen doom yi ba yenn heures yi xale buy jàng waroo ko bàyyi ba mu mu ba mu ba muy xale balaa muy tëdd yow war nga ko surveiller de test ko war nga tëj néegam nga xool ko ndax ki tëdd na ou pas mais parents yi léegi dañoo sàggan nga gis léegi dañuy ñoom dañuy dem voyager bàyyi fii booy bi si kër gi ak benn kii kiyam donc lu lu booy bi def noonu la aussi tamit tàmmal ko argent de poche donc ñu duñu ay tubaab aussi dëgg la jàng nañ am nañu mais maanaam duñ dund tubaab quoi nañ xool ne ñun Cheikh Amadou Bamba bu fekkoon tey jii dund tubaab du demee nii waaw ndax moom taxul fëgg dënam ne moom mooy man maay Cheikh Amadou Bamba dañ ko fëggal dënam maam Cheikh Ibrahima Fall moom moo mujjee ñëw mais gis nga ko tey ji lu mu liggéeyal tey Cheikh Amadou Bamba moo tax tey ñu tuddee ko maam Cheikh Rama Fall donc voilà quoi. beneen bi mooy ci wàllu làmb sport la boo xamante ni d'habitude da ngay gis mbër yi bu daanoo. Euh, jiiñ ko kenn wala mu daanu def loo xamante ni du ko bu sañu après bu toogee da koy rëccu wala mu daanu wut yeneen melokaan yoo xamante ni da koy da koy da koy jëfee en tant que mbër mi te doo ko xàmmee kooku bu amee defet automatiquement mën ngaa jubale ci moom changé ko ci yenn avis yoo xamante ni da koo nar a jël. waaw xam nga aussi tamit neexul ah nga préparé sa combat ñu jox la cachet de 500 millions wala deux cent millions ça dépend qu'importe Euh, ñu nga dem préparer sañ sa famille ñaanal la surtout aussi sa yaay ñaanal la sukk jooy ñaanal la donc say prof say ami say am di jàmm ñëpp sa soxna bi nga bi nga toog deux mois gisuloo ko aussi tamit nga mu ñaanal la euh, ça fait mal ça fait mal au cœur aussi tamit nga am défaite parce que défaite yàlla moo koy touché doomu aadama parce que fii des fois nga gis chef d'entreprise yoo xam ne dañuy dem ba si yàgg am am am kii am darawul dañuy dañuy continuer seen seen employé teru même bu ñu wàññi tamit dinañu wàññi mais déedéet man dem ne nit ki même bu fekkee dafa daanu daanu nga amul problème mais fair play quoi mais euh, da ngay xool comme comme Ligue des champions wala comme leneen ak leneen tey ji nga gis tey ji ni équipe bi ñu door ko 5-0 <laughs> mais dafa tax kay ji équipe bi la ñu door 5-0 mais doole 5-0 daan nañ la ok d' mais daan la mais kese daawuñu la yow kese bu fekkoon xaru kay na njëkkee sa maman parce que la <laughs> la la ñuy wax doomu diw la ñuy wax bul xaru déedéet continuer sa live parce que dama yaakaar bu fekkoon loolu la bonoon doo juddu bay bëri bu fekkoon xaruloo bon doo juddu bay bëre loolu mooy la dernière des choses li ma lay li koy conseil mooy maanaam même bu fekkee dafa daanu mu am courage daanu métti na mu am courage xam nga jugaat mm, bu entraîné waat continuer entraînement am parce que lépp yàlla bu la xañee tey suba da lay may ah waaw Modou Lo moo fi gën a métti. Modou fi gën a métti parce que gis nañ ko ñëpp waxoon nañ ko doo nekk droit des jeunes parce que dafa tuuti woon donc voilà gis nga ni mu demee diggante ak Eumeu Sène. gis nga ni mu demee diggante ak Balla Gaye te Balla Gaye daana bi mu ko daan moom fekkoon Modou Lo nit la wala du gor wala day dem xaru ji ku ñu jàppal def la nii donc loolu bu nekkoon ñeneen la dañuy pensé leen Modou dafa toog muñ te gisoo ko muy wax na damay dem nangam te loolu métti na ko. di ko nuyu de place passage sama xarit Modou waaw di la ñaanal jàmm aussi dina courant bi tamit yàlla nga si yàgg tamit yàlla may yàlla may jàmm te aussi lépp lu nga bëgg yaa ko xam sa xol yàlla la ko yàlla defal waaw voilà quoi loolu quoi. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa téye naa temps bu bari ci yow di la jaajëfal. waaw merci beaucoup aussi yow tamit di la jaajëfal aussi si question yi ma doon posé kontaan aussi trop donc ak sama copain sama xarit <laughs> euh, Bas sëñ Bas yàlla na yàlla defal jàmm aussi. yàlla leen yàlla fay aussi li ngeen def déplacement bi tamit donc nit amul lu dul nit daa mooy naan nit nit mooy garabam. ku bu leen neexoon tamit ñeneen non du ñu assan non donc mais dama leen ko wax automatiquement ñu ngi waxtaan ñu ngi communiquer mais dafa bàyyi sax ñëw ne ma lu li nga wax ne dafa am dafa am importance donc maa ngi ñaanal daal Sénégal ñu am jàmm ñu xam ne réewu jàmm la di ñaanal kilifa diine yëpp di ñaanal ñëpp ah. te tamit di ñaanal feebar bi euh, yàlla moo ko fi dugal. bu kenn bu kenn cherché ko yàlla lu tax mu dugal ko fi nañ ñaan yàlla mu mu mu ne mu delloowaat ko fu mu jugee tëj ko ba mu bañ a génnaat waaw ñu del nekkaat suñu activité dëkk bi nag métti na ku nekk ngi wax ku nekk ngi def li Sénégal moom benn bopp la ki mënu ko xam ñaar mbokk chrétien aussi aussi du question de ok affaire bi yéen rek yéen ko moom ñun ñëpp ko bokk parce que man mi dama ko doon feete gis naa ñiy wax ku nekk di wax naan non dañoo nangam non non non mu ci dugal kenn ah. loolu affaire état la état mooy xam ni mu koy organiser nañ bàyyi état def liggéeyam merci beaucoup. waaw ku buggoon contacter assan ban numéro la lay woowee. waaw ban benn numéro la ama ah. mooy sama 157 bi 78 157 35 02 moom numéro boobu laa am numéro boobu kese laa am ah. am ma benn numéro waaw. mooy sama numéro WhatsApp mooy sama numéro tamit ku ma woo mën na ma jot waaw H24 24 jours 24 waaw waaw. jërëjëf euh, grand maa ngi lay nuyu bu baax euh, nga fàttali ñu tur bi tuuti ñu ñëw ci kër gi certifié benn xale bu ñu naan Assane. Ah, man Badou Badou Fall du tudd waaw Assane de moom vraiment xale bu baax la xale bu yaru la te vraiment liggéeyam da koy teg ci yoon vraiment donc bi nga xamante léegi war na def léegi ay un mois mais tubaar fakal la vraiment il est très très très sérieux donc euh, man dama yor fii samay ay sœur ak sama frère bu ñuy malaat mais vraiment donc avant muy ñëw fii man dama jaaxle woon ma jaaxle woon parce que xam nga rek yor sa sœur ak sa frère yoo xam ni ñu ngi génn donc def na ko su dul noonu affaire yu demee noonu donc aw ma ci woon solution donc demoon naa hôpital dem naa fune mais bi yàlla defee ñu xamante le ba léegi nag tubaab fakal la léegi booy ñoom ñu ngi toog muy sama rakk bu jigéen bi muy rakk bu góor bi sama rakk bu jigéen bi daawul def dara mais léegi vraiment mi ngi mi ngi mi ngi liggéey. bu xëyee mooy defar ay néegam moo koy nettoyer donc euh, tamit cuisine bi tamit mi ngi jàppale soxna si ci affaire liggéey bi tout ça donc vraiment vraiment dam dama ci dama ci sant yàlla bu baax a baax a baax baax parce que dama jaaxle woon mais vraiment gis naa si changement bu mag a mag a mag a mag vraiment man je sais que man vraiment mënuma ko fay donc euh, fi mu ñu jëlee ak fi ma résultat bi ma gis nii daal bu continuer moom dama ciy sant yàlla bu baax a baax a baax donc euh, xale bu mën liggéeyam la teg ci yoon vraiment il est sérieux il est serviable vraiment vraiment kontaan naa ci moom. kan si. Assane gën a dénk. waaw non mu koy dénk mooy mu gën a góorgóorlu rek. gën a gën kii donc gën a gën a fas jom rek gën a liggéey il est jeune xale la. donc si lu mu nekk noonu vraiment mu continuer ci vraiment parce que dégg naa ay rem donc même bu dul man sax am na yeneen liggéey yoo xam def na ko feneen foo xam ni tamit dégg naa dégg naa ko daal ak yooyu donc dama koy féliciter di ko encouragé daal mu gën a góorgóorlu daal ci lu mu nekk ni daal bu mu bàyyi waa fu mu teg daal foofu la daal na continuer rek merci. yaay booy ginnaaw ba ñu la nuyoo ñu ñëwoon tey ci kër gi seet si ki nga xamante ni mooy Assane lan nga ñu mën a wax ci moom. xanaa baax baax na bisimilah rahmaani rahiim ba sax ma dugal ci bisimilah rahmaani rahiim ndax loolu dugg bisimilah rahmaani rahiim nga ciy dugal. maa ngi sant yàlla di sant yonent bi ak Serigne Touba Assane mii. doom ju baax la man de xam naa ne nit ku baax la Assane laa biir na alalam du ko du ko boole kenn te am na bi yar ami teggin te li gën a jafe ci gone yi tey du ko def te ku koy defit mu dili mu génne la ci loolu moom xam naa ko ci Assane ndax man mii damay yore sama doom man damay muur fi mu ne damay muur sama borom kër dafa génn àdduna bu yàggut waaye Assane sama doom ji jékki-jékki rek lànk ne dootul jàng heure bi daaw maa nga ca baara albaara albaara ga ca ginnaaw Gàmbi balaa nekk di nekk moom di ñuy faju foofu mu lànk ne nangutu jàng di ba def affaire daal mel ni ku naqari xelam naqari ndik dara jotu ko lu réew jotu ko nekk fa mu naa fa moom weer mu rëcc fa dem ba Casamance bunkuli ba may laata ñibbi si fekk naa papaam yónni ñu woote téléphone dama ni leen jëli ji nañ ko bunkuli mu ñëw. bu ñu nekkee ñu nekk ak moom nekk mu yóbbu naa ko njaareem ca daara ja muy jàng bàyyi école ba ñu teg ko ci giri ba muy jàng. ba mu fay jàng di jàng di jàng di jàng ba taayu papaam gaañoo ñu ne buñ ko yóbbu Tuubaa nañ ko génne bu ànd ak moom ci rob ma ne leen ku nekk njekk-jekk rek ñu la sa papa gaañu na duggal ci rob bi ñu dem yóbbu ko dem robi ko Touba day metti ci xale loolu wóorut nañ bàyyi ba bisub sarax ba nga nga indi ko bisub sarax ba ba sarax ba dellu see bis ba dellu see ñu indi ko mu nekk ci kër gi bëgg maa jaaxal na kon daar ja jëriñu ca dara daara jëm doon jàng ci sama doomi càmm ñu ko doon jàngal daara ju la njaareem am jàng alxuraan ak ñuy wàcc am na ci ñoo xam dañuy jàng ba ba yeggal seen njàng wàcc alxuraan dem duggiwaat dem di jàngiwaat école ba am seen BFEM wala bac man gis naa ko ca daara ja te moom mii moom laa ko bëggaloon mënuma ko am mu lànk mu nekk nag ci kër gi nag nanguta liggéey nanguta jàngi métier nanguta dem fenn lu rëy bu bu ko bu ko neexee dem Grand Dakar ga ma dëkkoon bu njëkk su demee te moromam yamu yam daan àndal su demee dafa fàq dem di fa nekk mujj gi muy dem liberté de di fa nekk. ginnaaw yàlla bi sarax si amee saraxu pàppam bi amee ñu koy ñaanal ñeent fukki guddi ci la ma Aliou doomu baayam ñu ñu toog di nekk ci saal bi fii di lekk laax mu daal di dem ba yeggee ne ne tàndayaana seex de man ni ma ko gisee léegi neexu ma parce que seex day wax waxi dof lay wax ak waxi réewande wax xam ne kenn xamul affaire bi nu mu demee. loolu papis xale bu doomi Rihanna ji ñuy wax papis daal di ne nañ ko booleeg asan suñ ko booleeg asan dana doon nit dana yaru wax de kon ñu teg ca ñaari fan moom xale bi daal di jiital asan dugal tegul ko ci ancien yu ñëw ñu ànd ak sa sama wujju peccer ko mu ma ñëw waxtaan ak moom ci li ma wax wax ko li ma naqari ci moom lépp mu ne ma bu soobee yàlla de bu dee bu reewoon wala mu dof wala muy jaay lenn bu ma ko jàppee dina réglé maa ngi ciy sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ndax Assane mii réglé na ma seex loo xam ne lii defoon naa ne seex du ko def seex léegi day tàgg tegal naa ko ndox mu muy jàppe léegi day julli benn waxtu ko raw day julli di toog da daan dem di dem bu demee fanaan àll. te loolu wóorul ci goney tey ndax bu goney tey boo ci ku ci fanaan àll fanaan ci àll su ëllëgee nga ànd goney wayu yee di tox yàmbaa di def yu bon lu ne nga di ko def loolu lépp nag ginnaaw yàlla Assane mii moo ma ko tegge ginnaaw yàlla maa ngi ko ci sant di ko gërëm Assane jàppal ma seex mii di ma ko yaral di ma ko yaral di ma ko yaral ko yaral ba seex a ngi ne cocc léegi jàpp sama doom yi wujj wi muy jorom yi dafa doonoon ko góor bu lekk bu ñu tibbee danaan du bokk ak kenn ñu koy tibbal bu añ jotee ñu tibbal ko añ bu reer jotee ñu tibbal ko reer ba ma waxee Assane ñëw fi di ma yaral Seex magam ju góor ji ci suuf gis ko daal di ne ah waa Seex kii Assane mi lu mu fiy def Assane daal di koy wax moom ne ko moom lii moom mooy moom lay liggéey waaye ba mu ko waxee ba mu waxataan ak bañ waxante moom ba jiboo mooy xale bu jigéen bi nee na cocc te burki démb lañ ko yóbbu woon mbaaw faje ju ko mu ngi ne cocc teggi na ko ci cigarette sam doon dox di jigéen teggi na ko ci daan tux ba ba dugal ci doomi doomi càmmiñam doomi càmmiñam dugal na ko ci wax keroog asan keroog fanaan fanaan fanaan yéen dafa di dem ci kër jàpp xale bi lu ne mu def ko ko moo moo moo ji lu ne mu def leen ko yar leen ba ñu jub fi ni kooku léegi mi ngi dugg ci waañ wi di togg di bale néegam di ko minaas di raxas duusam di def lépp mu di ko def te ginnaaw yàlla ak yonanti beeg sëriñ Touba ma yaakaar mii moo ko def Assane mii nag dama koy sant di ko ñaanal ci darajey sëriñ Fàllu mii mu takk doom sëriñ Fàllu ji mu takk yal na ko yàlla ak yonanti beeg Seex Ahmadu Bamba suturaal Assane baax na yaru na Assane xamul xamul lenn lu dul ab yar ak i teggin te ku bëgg nag Assane mii ku bëgg sa doom jub ëllëg soo ko joxee Assane dana la ko jubbanti incha allah ndax man gis naa ci seex léegi loo xam ne lii musuma koo gis ci seex te tey bu papaam gëndoon tey bu doon dund ba gis Assane ba gis ni Assane jubbantee seex mi ak coro mii dina gën a santaat yàlla gën a santaat yàlla kon nag Assane day man dama koy ñaanal fu ma tol dama koy ñaan dama ko xale bi doom yal na la yàlla musal cet ak làmmiñ Assane yow man ngaa ubbi mën ngaa ubbi ay ay ay kii di yar gone yi yow loolu mën nga ko parce que nii nga fulla ji nga ci am ak coono bi nga ciy am ñaq tooy di def loo xam ni defanteeg ñoom yoo xam ne i seen seex mii de tey mi ngi julli waxtu te Assane tax mu julli waxtu waxtu du ko raw mukk ci àddina day julli di toog ci sama wet waxtaanal la sa yaay bu bëggee def dara su ma ko ne ah yow léegi yaa ngi nga bu asal ñëwee dinaa ko bu yaay wax baal ma dootuma ko def yaay baal ma dootuma ko def yaay baal ma dootuma ko def yaay bu ma booleeg asan dootuma ko def te asan gaañu ko dóor ko dóor yu metti da koy yar da koo jubbanti rek nekkate ab yar kay bu nekete gone yi nekkate mën nañ mën nañoo yar man lii xawuma ko ci woon ci ci ci ne nañ ma danaa toog ba seex mi di toog sama wet du du dem di di dem di fanaani àll ak di yendu ji àll ñu di ma wonaan Cheikh fii bi ngi bërëb sànga te maa ñaari doom yu toll ni Assane kii ngi ministre la doon kii tailleur lay doon fi ne nag dem na ko ba ne ko nag damaa bëgg nga jub toj di liggéey nga jàngi métier di liggéey sa liggéey te bañ taxaw wàllu bañ a dem fenn bërki démb ban ko yónnee Grand Dakar mu di ma jëlali ab yàq sama waa kër ni dañ ñemoon ñu de seex léegi soppiku gu mu soppiku sant nañ ci yàlla ma ne leen maa leen gën a sant yàlla damay ñaanal aw fanam gudd rek bu ànd ak ak wér xam naa ne ku ku ku ko ku xam ko ku sa doom sikk soo ko joxee Assane dina ko jubbanti man de giñ naa ko ci Serigne tubaab ma yaakaar ne ku ko def di nga di nga di nga di nga di nga xam ne Assane a yar doom yi mu ngi leen di yar de te gaañu leen dóoru leen pour leen dara di defanteeg ñoom rek ak jub doo tox doo naan doo sàcc yi fi jaamu doo def dara lu may jub rek di jàpp di julli jub rek. ak boo bëggee jàng nga jàng moom daal Assane daal mi ngi jubbanti gone yi man nag a ko toog ba jàkk ma ne ko ma Assane la tere wut kër di ci woo gone yi ñu di leen nga yar gone yow lii man nga mën mën na métier macha allah tubaarkalla tubaarkalla tubaarkalla waaw waaw kay baax jërëjëf